dalen ak jamb si senelek sen andando bi wor ci walum courant tay ñoo ngi len di jumtu kay bi di woyofal ñu defar ko ngir yombal len ni ngeen di jëfëndiko sen courant ak woyofal man ngeen xam ñaata ngeen jënd si crédit ci wër weer wi teewlu bu baax leral yi te ngeen di seytu ni ngeen kay jëfëndiko ngir ay leral yu yaatu bind len 802 ak 803 ngir xam bis bi

815 ngir xam kañ ngeen mujjoon a jënd 816 ngir xam waxtu wi ngeen mujjoon a jënd 830 ngir xam code li ngeen mujjoon a jënd seen courant topp leen leeral yi di sakanal seen courant te fexe bokk si ñi yeewanal courant ngir mu sax su ngeen soxlaa ay leeral woo leen ñu gaaw ñoo ngi leen di jaajëfal si tànn gi ngeen ñu def ngir seen courant seen lekk seen àndandoo bu wóor ngir courant buy sax Chers internautes Diaspora News TV bonjour et bienvenue dans votre synthèse de l'actualité. actualité di leen jaajëfal bu baax a baax ci euh, Diaspora News TV ci est lu plus important information euh, si noonu rek ma ci ànd ak Nguer Aline Badara Soxna Ramata maa ngi lay fay. Euh, ci loolu rek xibaar yi ñu dooree ko euh, biir réew mi euh, ci lu ñeel wàllum justice mu mel ni une enquête judiciaire ouverte après la publication d'une correspondance administrative sur l'état de santé bu Ousmane Sonko. waaw mu mel ni rek dafa am ay violations yu jugee ci li nga xam ne rek moom mooy dossier médical bi soxal kii di opposant à di Ousmane Sonko le leader de l'ex-Pastef hmm. ba tax na rek euh, ci communiqué le procureur de la République mom dafa euh, wax rek ci dar dar ñu tijji ab l'enquête jëmele ko ci mbir moomu ba man rek képp koo xamante ne laale na ci rek ñu mën a leeral mbir mi ba xam fan la wànneen di mujjee ki gëtam mm-hmm. ci loolu rek ñu àddu ci euh, présidentiel 2024 ki nga xam ne euh, mooy Malick Gakou yëkkati na ay kaddu euh, ne si ne si je ne serai pas pas si je ne passe pas au deuxième tour je soutiendrai le candidat de Yewi. waaw kooku Malick Gakou mooy leaderu li nga xamante ne rek moom mooy grand parti

mu gën a wane rek euh, jàppale gi nga xam ne rek mu ngi koy way di jàppale foofu yi nga xam ne rek foofu la bokk ndax ci ginnaaw bu yàggul dara rek gis nañ ko mu doon xeexal ki nga xam ne rek moom mooy euh, leaderu ex Pastef bi nekk jamono ji foofee fecc hôpital principal. ba sax moom ay mbiram euh, ñuy ci wax ay mbirum médical yoo xam ne rek jamono ji dafa génnoon ba ministère de la justice saisiru ci dossier boobu jamono ji ñu bëgg koo leeral. je respecte toujours ma parole qui est euh, sacrée donc euh, si je ne suis pas qualifié au second tour de la présidentielle je soutiendrai le candidat partant à mon le xamle. <laughs> Euh, maison de justice l'année d'Aldi Djouboli, pas moins de 200 000 dossiers traités en 19 ans selon un officier wa ñi ko xamle rek ki ko xamle moo di euh, Abdoulaye Ndiaye moom nag moom directeur euh, de la protection de la proximité et de la promotion de l'accès au droit au ministère de la justice moom nag dafa ñëwoon ci li nga xam rek moom mooy njariñu di maison de justice yi mu xamle rek euh, ci mbir moomu la ba léegi recouvrer nañ luy toll ci milliards ci suñu également ci ay explication yu mu joxe maison de justice les maisons de justice sont un mécanisme qui a été mis en place par le gouvernement du Sénégal et qui a pour objectif principal d'aider à résoudre les conflits de couches vulnérables au niveau des quartiers et des zones les plus euh, reculées dans une procédure gratuite. Le dispositif créé depuis 2004 a connu pas moins de 200 000 dossier mom la xam legui naw rek ci alxemes ji bu mu amone ab atelier de renforcement euh, des capacités du personnel des maisons de justice bu mu doon amal euh, maison de justice de Ziguinchor Kaolack et de Tambacounda ci euh, lolu ba legui rek mom xam na maison de justice yi dañuy dimbali rek askan bi pour ñu mëna am accès ci extrait wala casier judiciaire wala rek ñu leen di mën di jappalé bu baax baax ci walum mbind mbindum plainte wala bépp document boo xamante ne rek daf leen a soxal mu jógee ci wàllum juridiction yooyu noonu lay ramatal. Euh, l'actualité hors de nos frontières xibaaru bitim réew yi dañuy dalandi fële ca réewum Maroc mu mel ni euh, la marine marocaine porte secours à 415 migrants sénégalais. Euh, soxna Ramata ci mbir moomu lekk am naa ni que rek dinañ ci xaw a taxawandi tuuti rek te di wax ni que ndaw ñi moom euh, donte ñi ngi tudd mbirum rapatriement ci jóge fële ci la ca Maroc ñi ngi seetlu ne ñoom daal ñi ngi wéy di jël gaal gi ba léegi jëm ci waaxi Espagne yi euh, jëm foofee ci waaxi Espagne yi wala sax ci Italie ndax ci li ñu gën a seetlu. bokk na ci ñi teer foofe ca île Canaria wala ñi nga xam ne rek dañ leen a gis ñuy wàcc foofe ca Lampedusa ca itali bon tund ni ñu ci xibaar bi la ñu joxe rek ci àllarba ji gis nañu loo xam ne rek toll nañ ci euh, ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci ay migrants sénégalais euh, ci ñoom ñu nag euh, seetlu nañ ci nekk am na ci juróom ay jigéen lañu lu toll ci téeméer également ak ñaar fukk gis nañu que ñoom ay xale lañu. ñaari pirogue yi doon transporter nag euh, ñi di migrants yi jëmoon foofee ca Europe bokk nañ ci benn pirogue bi ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent beneen bi mi ngi yaboon lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay passagers sénégalais. source bi nag membres dafa jugé nécessaire de ne pas dévoiler son identité. Mm-hmm. ci loolu rek ñu daal di ko jeexalee ak euh, conflit bi nga xam ne mu ngi dox ci diggante Israël ak Hamas euh, mu mel ni au moins de 57 euh, employés de l'agent de l'ONU pour les réfugiés palestiniens ñi nga xam ne dañ leen daal di faat. jëye ji continuer di wéy foofee ca Israël ak ca Palestine ginnaaw rek bi nga xamante ne.

pour les réfugiés palestiniens ñu toll ci limub juróom fukk ak juróom ñaar ñoo xam rek faatu nañu ci depuis le 7 octobre bi nga xam ne rek xeex bi éclaté na li ci xaw a rek depuis lors ñi ngi seetlu dañu rek mënagul trouver li nga xamante rek mom moy une issue favorable pour mëna trouver la solution à cette guerre ndaxte lii di euh, communauté internationale bi ba léegi mënuñu gu ñu am euh, accord ginnaaw démb bi ñu dajee fële ca siège bu Nations Unies ba léegi rek dañu am ay jafe-jafe pour mën a xam ban euh, ban solution rek la ñuy jël ci mbir mi leen ndaxte rek mi ngi wéy rek di continuer di lor ñi nga xam ne ñi ngi dëkk foofe ca Jérusalem wala rek foofe ca ñi nga xam ne rek ca Hamas la ñu féete wala Israël Sahna Ramata. Mhm, euh, c'était tout pour la synthèse de euh, votre actualité ñu di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi ngeen ñu teewlu di leen wax rek wéy leen du ñu teewlu si suñu yeneen jotaay xibaar. Bienvenue chez la Sénélec, votre partenaire énergétique de confiance. Aujourd'hui, on vous présente le système Woyofal conçu pour mieux gérer votre énergie. Avec Wirefall, vous pouvez connaître le montant exact de votre recharge mensuelle de crédit, rester informé et contrôler votre consommation. À des fins de consommation, veuillez composer 800 pour la consommation totale, 801 pour le crédit restant, 813 pour la consommation des dernières 24 heures, 814 pour la consommation du mois en cours, 820 pour la consommation du mois précédent, 817 pour le montant de la dernière recharge, 811 pour emprunter du crédit, 815 pour la date de la dernière recharge, 816 pour l'heure de la dernière recharge, 830 pour le code de la dernière recharge. Avec Wayofal, la maîtrise de votre énergie est à portée de main. Restez informé, économisez et contribuez à un avenir énergétique durable. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service client. Merci de nous avoir choisis pour vos besoins énergétiques. Sénélec, votre partenaire pour l'énergie de demain.